ko ñi jàngul it dégg nañ ñi jàng di ko wax nga xam ni euh, borom bi subhanahu wa melal na leen misaal leen ci misaal yu baree bari ci ay mel ni lu mel ni musrifoon bi mu tudd léegi rek ñu ay tooñkat ak yeneen yu bari yu dul yooyu yoo yële melo nag mel ni ñoom ci biir àdduna liñ ci xam ñoom ñooy ñi njëkk a def phénomène boobu mu doon ay góor yu doon sëy ak i góor loolu duma ci sori ndax fa mujj ñëpp xam nañ ko mooy borom bi alag leen ndax demoon nañ ci ba yamatuñ ci ku ko bëgg a def def ko làqatoog nit waaye dafa mel ni agression sax da coo mujjoon di tege ba ku ñu gis góor gu dikk ca dëkk ba di gan ñu ñëw fi mu ne bëgg leen approché te xise yi ci borom bi nett li diggante gan ñoo ñu dikkoon ñu yaakaar ni ay nit lañu fekk duñu ay nit ay malaaka lañu borom bee leen yabaloon ñu ñëw am lu ñu doon dox si bañ leen gisee ak seen melo yi ne ñoom ñëpp ñu taqale ko seen sago ñëw jege si leen ba lóot di leen xamal ni ay doomam yu jigéen day ñoo ngi nii demoon ànd ak ñoom mooy la doon gën te gën a yell waaye bàyyi fi ganam yi nga xam ne dañ ko bëgg a teg euh, te waxtaange euh, loola kon muy mbir moo xam ni manees na caa xame ni kon ay góor yu daan sëy ak i góor la ba mujjoon yeggale ko ci dayo boobu waaye phénomène bi ñuy wax bu dee ci Sénégal itam en tout cas man li ma ci li ma ci xam xëj na nit mën na cee xam leneen waaye li ma ci xam ñi ñu fi daan tudde ay góor jigéen mooy nit ñoo xam ni dañuy eh, dañuy li tubaab di wax efféminé dañuy damm seeni loxoog di faral di nekk lu bari ci jigéen ñeeg di fóot ak eh, di def yëfi jigéen lu bari boo demee ndar am na xeeti eh, col col ko yun daan solu yoo xam ne dañuy sol seen fant mbubb mi ba mu agsi fii yu demee noonu daal lañ daan xam ñu ngi wax efféminé waaye phénomène bii ci jëmmit jamono ji ñu toll dafa mel ni dafa xaw a dépassé loolu tuuti wax naa ko léegi ni am na ñuy wax homosexualité waaye am na ñuy wax leneen lu ñuy wax aussi o bi mooy orientation s bi mooy sexuel i bi mooy identité G bi mooy genre ci Nations Unies ñoom noonu lañ koy présenté mooy orientation sexuelle ak identité de genre orientation sexuelle mooy euh, euh, gisiin ak jëfin ci wàllu sëy nga xam ni ay gisiin ak i ci wàllu sëy la loolu nga xam ne ñoom dañuy jàpp ni nit bu dee góor la mën naa jàpp ni moom lii gisiinam ak euh, jëfinam mooy moom góor gi mën naa ànd ak jigéen ci sëy waaye keneen mën naa jàpp ni moom ki mu bokkal ni ko yàlla bindee góor ak góor noonu la war a sëy moo tax ñu wax orientation sexuelle ñoom nag ñu jàpp ni orientation sexuelle boobu day am xar kanam gu muy àndal ak doxalin ak melokaan ak taxawaay moo tax ñu wax identité de genre nga xam ni noonu nit ka mel ci orientation mooy tax taxawaayam doxalinam ak nekkinam ci biir euh, euh, euh, pénc bi loolu moom dañ koy tudde noonu wa illaa ñu ni LGBT wala plus sax L bi mooy jigéen ak jigéen juy sëy seen biir mooy lesbienne wala boog lesbianisme G bi mooy gay gay moom dëgg-dëgg moom lañu ñuy wax homosexualité mooy góor ak góor guy sëy euh, B bi mooy bisexuel mooy koo xam ni moom góor la waaye dana sëye góor di sëye jigéen ñaar ñëpp lay sëye wala jigéen la dana ànd ak góor dana ànd ak jigéen kooku mooy bisexuel am na ci benn frange bu nekk ci biir it mooy ñi nga xam ni ci seen bind xëy na noonu lañuy euh, juddoo ñu koy wax nguunu ngaana euh, loola tamit dugg na ci biir bisexualité beneen bi ci des muy euh, transsexuel wala transgenre transsexuel mooy ki nga xam ne bi muy juddu ci ndeyam ak baayam moom góor la ba ñu ngénte ko tudde ko diw sàngam ñoo xam ne turu góor la yor mu dem ba ci yàgg dal ni ni ko yàlla bind daal ni neexu ko daal di dem def opération ñu daal di koy dindil awraam daal di koy pikiir ay hormone ndax xam nga ñu jàng science xam nañ loolu xam nañu différence bi liy tax léeg-léeg caractéristiques yooyu di am lu wuteeg bind bi ay hormone la léegi ñu daal di jël ay hormone jigéen di ko ko pikiir ba nga xam ne léegi day mën a am bindu jigéen ak melaw jigéen daal di am ay ween daal di am yooyu yépp di ko am fekk na bi muy jundu ci ndeyam ak baayam góor la loolu la ñuy wax transsexuel nga xam ni bari nañ ñoo xam ni fi mu ne ci noonu la ñuy mel gis leen ba ñuy judd góor la ñu léegi jigéen lañu ba ñuy juddu seen ndey bàyyi jigéen lañu léegi léegi góor lañu dañ leen defal opération defal leen ay piquer leen ay hormones ñu koy topp ba ñu mën a taxawe noonu ñoo lañu tuddee transsexuel wala transgenre léegi am na yeneen yu ci tege ay intersexué ak euh, queer ak yeneen ak yeneen zoophilie nécrophilie et cetera nécrophilie mooy ñi nga xam ne dañuy sëy nit ñi faatu euh, nit ku faatu ba noppi ñi leen di sëyee ñooñu leen di tuddee ay nécrophile euh, zoophilie mooy ñi nga xam ni ay bàyyima la ñuy sëyee tey boo demee réew yu bari ci nga xam ne ubbi nañ législation boobu dafay am li ñuy wax ay maison close maison close barab lay doon yoo xam ne comme genre hôtel lay doon da ngay ñëw ñun la fii euh, dawkat fi nekk maanaam ab xaj wala leneen wala leneen nga xam ne nit ki day dem sëyee loolu fay dagg ticket dem sëyee loolu wala sëyee leneen wala sëyee leneen donc foofu la jamono toll foofu la àdduna toll loolu nag di lu tiis loo xam ni kon gis ngeen ni xaw naa wuute tuuti ñun ak lañu xamoon te démb ni moom mooy homosexualité waaye li ci dollikuwaat mooy yemuñu ci ni dafa am nit ñu koy def dina bëtu di ko def déedéet léegi dañ ni kat il faut ñu légiférer ci gàkku gàkku nit ñëpp nit ñëpp nangu ko di ko di ko jëflanteeg loolu loolu moo tax Nations Unies boo seetloo li ñuy wax àq ak yelleef doomu aadama ñoom toujours mbir mi mën nañoo ñëw sax fi mu nekk ci yéen di wax ak yéen ci mbir mi te du ngeen xam li ñuy wax ak yéen lan la ndax àq ak yelleef la ñuy wax bu accès àq ak yelleef moo tax fu nit déggati ñu ne droits humains neel tekk taxaw droits humains foo ko déggate ñu wax rek taxaw ndax xamal ne lan lay wax mat naa leer xam nga la déclaration universelle des droits de l'homme ku ne xam ne ni le 10 décembre 1948 la woon euh, biñ ko defee dafa am ci article 2 bi ay dispositions yoo xam ni dañ ko cee dugaloon wane ni nit dafa am àq ak yelleef àqam ak yelleef yooyu nag kenn sañu ko koo xañ te sukkandiku ci ab beram lu mu mel wala nga sukkandiku ci waasoo wala nga sukkandiku ci làkk wu muy wax walla diine ju mu nekk wala wax bu mu dëkk ci àdduna bi wala xalaat yu mu am xeet yu mel noonu loolu lañu ñu defoon am na wala ku ñàkk la et cetera loolu la def ci article waaye booba bi ñu koy def kenn sóoraale ci woon mbir mii ñuy wax homosexualité ndax lan ñoom ñu doon bind disposition yooyu ca jamono jooju danoo jàppoon ni mbirum góor jigéen nit ñi feebar koy def góor mu mën a sëy ak góor ñoom ca jamono jooju loolu lañ jàppoon ba ci Nations Unies loolu lañ jàppoon jamono jooju ci 1948 loolu moo waral bi ñu demee ba ci les années 60 ay 68 euh, yéen ñëpp dégg ngeen ko la révolution 68 euh, euh, ak tàmbalik année 70 yi góor jigéen ñi tàmbali nag surtout ci États-Unis di def ay manifestations ni il faut ñu jox leen seen àq seen yelleef parce que ay nit lañu te ñoom nii lañ gisee sëy nii lañ gisee sëyin yooyu bi mu tàmbalee di am di am nag ay pression di am ba Nations Unies finalement daal ni ñii il faut ñu bàyyi leen xel. ñu jël en compte li ñu bëgg loolu moo waral en 1990 xam nga kon presque euh, ñeent fukki at ak ñaar ginnaaw ba 1990 ci la Nations Unies jël benn dogal ci benn bànqaasam bu ñuy wax OMS mooy organisation mondiale de la santé OMS moomu moo jël benn dogal ci euh, le 17 mai 1990. pour d'abord retirer homosexualité de la classification internationale des maladies maanaam jëmmi yi nga xam ni dañoo jàppoon ni ay feebar lañu muy xuréet par exemple lu mel ni paludisme par exemple variole variole varicelle ak yu ni demee loolu dafa am liste bu ñu ci def boo xam ne neuf classification yi ñu ci njëkk def yépp boo demee dañ ci fekk homosexualité waaye ci dixième bi nag ci lañ ko ci rocc daan ni léegi bokkatul ci feebar yi ngóor jigéen bokkatu ci mbir mu naturel la mbir la moo xam ni tamit yell na ci ñu euh, seetaat ko loolu moo waral fi njëkk a def mooy génne ko ci jëmmi feebar yi boole ko ci mbir yi nga xam ni yu normal la loolu Nations Unies mi ngi ko def à travers l'OMS euh, le 17 mai 1990 bi Nations Unies defee loolu nag euh, dafa daal di woote ab ndaje moo xam ni réew yépp lañu woo ñoo nga leen woo ci dëkk boo xam ni mooy capitale bu Autriche ñu koy wax Vienne am ndaje moo xam ni àdduna sépp lañu woo muy la conférence de Vienne bi nu jógee ci conférence boobu la ñu tënk benn programme boo xam ni moom la ñu wax la programme euh, et la déclaration de Vienne 1993 Nations Unies gis ni kon déclaration de droits de l'homme bi ñu defoon dafa manqué ndax boolewuñ ci woon ñi ñuy wax ay minorité boolewuñ ci woon góor jigéen ñi par exemple kon ñooñu nag na Nations Unies liggéey ba ñoom it ñu jox leen seen àq ak yelleef ci kaw suuf si kon gis ngeen geneen wuute gi ci tàmbalee amat aussi loolu nag ñoom ñu joxoon seen bopp ñaar fukki at vingt ans pour nos travaux yoo xam ni document bu officiel la ku tàppe ci internet bi da ko gis disponible na en huit langues disponible na en arabe ku ko bëgg a consulter mën nga ko consulter en arabe euh, ci site euh, Nations Unies bi ñu defee loolu ñoom ñu ni kon ñaar fukki at lañ sas seen bopp pour fexe ba góor jigéen yéeg ñi ñuy wax ay minorité bokk li nit ñëpp di sañ ci kaw suuf si ñu sañ ko ci kaw suuf si bi ñuy dem avant ñuy àgg ci ñaar yi bi ñu amee 18 ans ci la Nations Unies jël benn dogal dogal yi muy jël nag ci wàllu loi ñoo ngi koy tudde ay résolution résolution boobu mooy la résolution 17 19 bu 15 juin 2011 Nations Unies ci la ko jël pour proclamer ce qu'on appelle des droits nouveaux yoo xam ne ñoo ngi ko consacré ñi ñuy wax minorité yi ak góor jigéen yi loolu le 15 juin 2011 la ko Nations Unies def bi ko Nations Unies defee nag dafa daal di ni léegi nag dogal bi moom am na maanaam tëral nañ ko ci wàllu yoon pour jullit yi man koo comprendre day mel ni disposition bi léegi fekk nañ ko ci alxuraan yàllaa ko wax léegi ñoom nag liñ jàpp ni mooy li gën a kawe ci lu ñuy dogal fa lañ ko dugal muy résolution 17 19 bu 15 juin 2011 léegi bi ñu ko fa defee. Nations Unies léegi daal ni dafay jël ay mécanisme yoo xam ni ci lay jaar pour nit ñëpp ñu weñ seen loxo pour ñu man koo nangu benn bu njëkk bi mooy dogal bi am na dafay woo état yi nga ñëw toog kon nii ñu toogee nii état yëpp ñëw toog xëy na bu fekkee waxtu bi may na ko sax naa ci wane benn jotaay boo xam Sénégal dem na fa laaj ak tontu dan lay laaj nga tontu ñu wax la nangam ak nangam nga wax la nga engagement yi nga jëloon loo ci def lan nga ci deful lan moo tax defoo ko lan nga ci tàmbali tee xëñ na moom amul gàllankoor waaye li nga ci tàmbali mu yegg lu ci ne lan la su ko defee ngeen bokk xoolaat nos nan ngeen di fexe ba yi sottiwul moom yan xàll ngeen di jaar pour loolu mën a sotti loolu la ñuy tudde EPU EPU mooy examen périodique universel EPU Sénégal dem na 2008 dem na 2013 dem na 2018 2023 bii Sénégal dana delluwaat bu demee ay ndigal lañ koy jox ay ndigal yoo xam ne dañ naan ko sa constitution soppil nangam ak nangam ndax lii dëppoowul ak droit de l'homme dëppoowul ak droits humains say disposition maanaam sa code pénal sa code des obligations civiles et commerciales sa code euh, de la famille et cetera et cetera soppil disposition sangam soppil nangam soppil nangam soppil nangam su ko defee Sénégal bu ñëwee li mu ci mën a soppi mu soppi ko li nga xam ne laaj na mu yootaan mu nekk ca yootaan di yootaan léeg-léeg mu ni cuut léeg-léeg mu ne cappet léeg-léeg mu ni cuut di def noonu ba ba muy delluwaat ñu woo ko bu ñëwee daal ne ah, lii de jot naa ci def 40 pour cent lii moom 10 pour bii nag moom question la boo xam ne su ma koy laal laal dee la tudd ndax askan wa nangam ak nangam lu mel ni homosexualité bi 2008 bi ñu demee loolu la ñu waxoon mbir mu complexe la moo xam ni dafa laaj ay naxante laaj ay yëf ndax nit yi diina fa nekk te ñoom yu mel ni duñ ko dong kon faw ngeen may ñu temps loolu la waral toujours ngeen di dégg président ci kàddoom mu yox problème mu temps problème temps ndax xam na ni ku ni ko jommet def te bis bis benn ci benn waxtu guddi googu mën ngaa bañ a fanaan pale moo tax ñuy laaj toujours temps léegi loolu ci ëppee yi lañ koy natte su ko defee Nations Unies génne beneen directive boo xam ni euh, daf cee joxe juróomi euh, juróomi euh, warteef ndax xam nga ndigal mooy recommandation waaye warteef mooy obligation bokkuñu Nations Unies mën naa digle dara ku mel ni Iran wala Russie wala Chine yooyu moom kenn xalaatul ñoom di leen ci wax dara sax ñoom dañoo lànk fe lañ taxaw euh, ñoom ñoom bokkuñu waaye su ko diglee Sénégal moom daan ah waaw moom kay li ngeen li ngeen wax rek fan lay signé ñu ni signé fii nga daal di signé am na ci lu xoromu sax ba ki démb kilifa goo xam ni euh, dafa ma woo ku jege président euh, mu ni ma maa ngi lay seet si mu ñëw ñu toog di waxtaan mu ni ma. man xam naa sax bi ñu waxtaanee ci mbir mi ci lay soog a ci li ngeen di wax ak affaire yi affaire yi garaaw la mais ni ma leere ni nii ma ko umpale noonu la ko président umpale ma ne ko sëñ bi bàyyi leen seen wax yi lii président mënu ko umpale mënta nekk mu ni ma déedéet xam nga experts yi non c'est-à-dire loolu il faudrait que sénégalais yi ngeen xam ko mu ni ma experts yi ñoom dong ñoom ñooy jàngat document yi su suñ ko jàngatee ñoom ñoo am temps bi ñoo koy jàngat xool ko ko defee dañuy def benn note de ci rek kilifa gi moom dañ ko ubbi rek ni ma ne ko mais loolu ñun kon ñun ñun nekkuñu en sécurité ñun ndeke ci gaalu gaalu <laughs> ah ñun gaal gi ñu dugg gaal gi ñu am na lu ñu daan wax de gaalu ah gaalu waaw ñu ni du ñu ni ñu déedéet dana teer kañ waaye fu muy teer a neexul bokk yi du neex bokk yi gaalu nangam xam ngeen ni mu wax waaw kañ ma ngoog <laughs> waaye ñun gaal gi nu dugg kon ndeke fa muy teere du ñu neex ndax ndekete kon ñun suñuy kilifa mën nañoo signé luy engage askan wi engagé seen njaboot te ñoom xamuñu sax liñ signé te man sax gawma lool ndax signature euh, defewuñ ko doon waaye ñoom lool lañu wax ah léegi nag obligation yooyu obligation mooy warteef loo xam ni faw da nga koy def dafa am cinq obligations juridiques fondamentale des états concernant la protection des droits de l'homme des LGBT cinq obligations mooy warteef la lépp lu waa àdduna di jëflanteeti Sénégal di ko jëflante ak waa àdduna lii bokk na ci la cay jiitu keno la cay doon maanaam même bu ñuy wax mbirum pétrole énergie bu ñuy wax mbirum dañ lay exploiter sa pétrole lii danañ ko ci boolewaale cinq obligations juridiques fondamentales lañu des états concernant la protection des droits de l'homme des LGBT cinq benn bu njëkk bi muy ñu ni gis nañ kat ni Nations Unies jël na dogal wàllu yoon moom am na léegi léegi góor jigéen yi ak ñëpp a yom àq yi yelleef ci kaw suuf si waaye am na état yoo xam ne ñemee guñ koo doxal ñu ni kon war feef li njëkk a gàll seeni i loos wala seen seeni seen i wakk ba ca njëkk mooy na ngeen aar góor jigéen protéger les homosexuels les personnes LGBT LGBTI na ngeen leen protéger état yi nañu protéger ñooñ ndax suñu bëggee génn ñu bëgg leen a dal il faut ñu protéger leen dox seen diggante ak askan wi loolu mooy première obligation bi deuxième obligation bi mooy suñu leen protéger ba pare état yi na ngeen dem ngeen jàngat xool naka ngeen di fexe ba violence dootul jóge ci kenn di dem ci ab góor jigéen prévenir la violence homophobe et transphobe prévenir xam nga prévention bi bokkut ak lee lii dañuy nañ leen aar ndax lu jam la lu jàmp la lu taxaw la waaye bi ci topp mooy gëstu leen ba benn violence ci kaddu ci jëf dootul amati jëm ci ab góor jigéen ci kaw suuf si mooy deuxième obligation bi troisième obligation bi mooy na ngeen fexe ba mbooleem yoon wu ñu tëraloon ni day daan ab góor jigéen yoon wow nañ ko nocc mu deñ mooy dépénaliser l'homosexualité quatrième obligation bi am solo la danaa ci ñëwaat léegi nii ndax dafa ab rapport ak programme bi Sénégal teg mooy interdire la discrimination des personnes LGBT yi mooy bu leen kenn boddeeti ci kaw suuf si ndax xam su fekkee protégé dañ leen ba mucc fexe nañ ba kenn doot dalatul seen kaw benn yoon bu leen di daan amatul loolu doyut léegi ñoom suñu doxoon fii góor jigéen ñi daal di ñëw ñu baal ma misaal mi nag agsi ci suñu saal bi rek kii damub loxo kii daal di góor daal di teg musóoram tàmbalee rege joo ko yëf daal ne eh waaye seen waxin yooyu ñu def jox leen ma kàddu bi xam nga nit ñi nañ ko nangu léegi ñu ni loolu il faudrait que ñu nangul leen ko aussi bu leen kenn boddeeti kun jëflanteel faaw nga jëflanteek moom loolu mooy interdire la discrimination des personnes LGBT yi nga xam ni kon ñaari góor suñu jàppantee ci loxo ñëw ci jàkka ji fekk imaam ni ko mayee ñu su leen mayewul moom mooy am problème bu ñaari góor wala ñaari jigéen jàppantee dem ci biir abbe bi ci église bi ni ko mayee ñu bu leen moom mooy am problème loolu la ñuy wax interdire la discrimination des personnes LGBT loolu nag la Sénégal jël interdiction discrimination boobu boo demee ci la SNEC 2 depuis 2016 ñu ni vision SNEC 2 sur 10 ans la 2016 ba 2026 euh, dañ cee bind ni xam nga vision yéen ñi jàng xam ngeen ni su fekkente ni dañoo bëgg def dara ñu ni kat Daaru Muxti gii ñu ñoo commencé bokk dañoo daje pour waxtaane dëkk bi bëgg nañu fi ak juróom fukki at dëkk bi mel nangam mel nangam mel nangam mel nangam noonu ñu bëgg mu mel ko xam nga nekkagul da ngay gëmm pour man koo jeneer gis ko ba pare loolu la ñuy tuddee vision nga xam ni fi ñu bëgg mu dem fa de euh, fi ak juróom fukki at wala téeméer dañ koy misaal ci gis ko ci suñu gëmm ba pare léegi nag daal di koy yaxal bind ko su ko defee ñu xool nan la ñuy def ba loolu mën a am loolu la ñu tuddee vision léegi vision document bii may wax ni muy la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre xam nga lan la faire du Sénégal un pays émergent en 2026 xam ngeen ni kon accès bu en 2026 li tax ànd sàmm jikko yi ñun li ñuy wax xam nañ ko ñoom it xam nañ ni ñun li ñuy wax xam nañ ko ñun it xam nañ ne ñoom xam nañ li ñuy wax moo tax ñu ni faire du Sénégal un pays émergent en 2026 avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination mooy Sénégal nañ ko def réew moo xam ni réew mu tàmbali soqali ko la bu ñu àggee ci 2026 léegi danañ tàmbalee di am as ndoole mu doon réew moo xam nit nit ñi dañuy jàppante ni ay mool ni alxuraan di wax rek kaanahum bunyaanun marsuus waaye tamit mu doon réew moo xam ni yoon doo nga fay dox d'ailleurs ban yoon bu fekkonte ni nit ñi citoyenneté bi àgg na fenn fi nit ñi danañ wax ni ban yoon lañ ñuy wax un état de droit droit ban droit la waaye nag ñu ni boddee dootu fa am boddee léegi man ma laajte tey fii solennellement ci Daaru Muxti ci ñu nekk fan ngeen xam ci Sénégal foo xam ne boddee dafay am fu fi boddee am boddee amul ci réew mi bu dul man xam naa ñu ñu fi boddi mooy mooy nit yi diine yi ak sëriñ daara yi dañ leen a boddi ci réew mi li may waxit mën naa ko firndeel ndax boo demee ci constitution bu Sénégal article 28 bi dañoo wax ni kenn mën mënta jiite réew mi te mënoo làkk français mën koo bind mën koo wax savoir lire parler et écrire couramment la français ku mënul lii mënoo bokk ci ñuy jiite réew mi loolu moom boddee la jàpp nañ ni képp koo xam ne dangaa jàng diine mbaa ngay lakk arab mbaa ngay waxi wolof nit ko waaye di nga koo xam ne sii mënoo yor am réew lii bind nañ ko ci constitution bu Sénégal bu dul yii may wax nag bot dee man xaw ma ko ci réew loolu moo waral ñu dugal ci disposition boobu ba nga xam ni kon ñi tubaab bi nàmpal ba feral leen ba tàggat leen ba gërëm leen jox leen ijaasa ñooña dong ñooy mën a ŋànk réew yi ñoo koy mën a yore lii laa gis ni moom boddee la ci biir réew mi discrimination la te ñi jàng xam nañ li ma wax te ñi jàngit bu nu génn fii naan ma damay wax ndax maa ngi ñoom ñoo bokkoon ci école leen jànge dong waaye lii mooy li nga xam ne moom lañ def ci constitution bu Sénégal kon gis nga ni loolu boddee amul ci réew mi lu dul lii ma wax kon discrimination bi état bi di wax mooy góor jigéen yi nga xam ne dañ leen a bañal Sénégal lañ bëgg 2026 ñu am fi seen lépp lii mu ngi ci la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre bu Sénégal te ci seen tur lañ ko def ci turu sëñ Mountakha ak sëñ Babacar Mansour lañ def document boobu moo tax souvent ñu baal ma tuuti benn parenthèse bu ma déggee nit naan man duma politique vraiment la Bertolt Brecht waxoon rek mooy mooy dëgg koo gis mu naan du politique lu yàqu ci réew moo ko yàq lan moo tax bu politique politique mooy lan fexe ba ñun tey jii fii ñu nekk nii bu yaakaar ni ñaan ñi ni ñaan rek a tax ñu am kaaraange de déedéet lenn nag ci suñuy doom suñuy jarbaat suñuy mag ak suñuy rakk lañu jël tàggat leen fayal def alal ju bari ci ñoom jënd ay milliards def ko ci ñoom ñu yor ay fafal naaw yor ay fetal lu ne ñu yor ko nekk ci frontière bi pour fexe ba kenn du ñëwati fii di jàpp sénégalais loolu bokk na ci li ñu may sécurité loolu mooy politique te fi mu ne lii tax kaaraange googu am armée nationale ñoo koy lijjanti ñu ne doyul nañu police ak gendarmerie ñu nekk ci biir nit ñi it di leen teqale loolu du ay ñaan kese koy lijjanti te lii politique moo koy def lan la ñuy jàngal suñuy doom lan la ñu war a def ci ñoom ci xam-xam ci xarala lan lañu war a jiital am po. ndaw rabbin wala boo xam-xam bu leen di jariñ loolu politique moo koy décider nga ni man du ma politique ku wopp fan la war a fajoo ndax paj ma fi mu nekk nii sax waru caa fay état bee ko war a jël en loolu lépp kii politique képp moo ko man nga ni man sama yoon nekku ci yow saw yoon ci lu mu ne damay laaj de saw yoon nekkul ci fi mu nekk nii nit ñi ko wopp foo war a fajoo saw yoon nekkul ci loolu saw yoon kon ci lan na ne li ñëpp maase bokk république mooy la chose publique mooy li ñëpp maase bokk li ñëpp maase bokk nga ni sama yoon nekku ci man saw yoon ci lu gis nga ni philosophe allemand boobu la mu doon wax lu mat a bàyyi xel koo dégg mu ni sama yoon nekkul ci politique lu yàqu cim réew moo ko yàq bu bu fa drogue ba baree moom moo tax mu bari fa ndax moo seetaan ay kàccoor ak nit ñu gëmul dara téye kàddu askan wi ak seen alal seen doole ci yaata yu mba di def lu leen neex ak yeneen ak yeneen ak yeneen moo tax sëriñ daara yii bàyyi leen xel ci réew mii nii réew mi du joyante ko mukk du tege mukk ci yoon te jëlu leen réew mi yore ko mënta nekk nit li leen bëgg a gëmloo maanaam yorum réew fi ne làkk aw làkk wax aw làkk moo ko yor loolu fan ngeen ko gis ci àdduna ñu def ko fa réew ma jëm ci kanam amut man kañ li ma jàppoon mooy article 28 bi ma doon wax léegi nii dañoo waroon wax ni réew mi képp koo xam ne mas ngaa wax lu dul dëgg doo ko jiite képp ku mas a jël alali jaamur doo ko jiite man lii laa jàppoon ni lañ war a wax ci ay jikko lañu war a sukkandiku waaye ku mën a waxu laat farañse farañse moo lu ko wutale euh, séeréer lu leen wutale aw làkk dong ñu sukkandiku ci ku mënta làkkoo làkk mënoo jiite réew mi ñun gaal gi ñu dugal xamuñu lu mu te se sëriñ daara rey nag am nañ ci responsabilité te jàpp naa ni képp koo xam ni mën ngaa defar defaroo seetaan ba ñu yàq ña yàq am nañ responsabilité waaye yow it am nga responsabilité loolu loolu loolu dafa dafa dafa am solo maanaam yëf yi bu leen koy yemalee ci yor kurus bi dong ak julli ci jàkk ji génn déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam loo jege jege jege jege jege mu gën laa xoj gën laa jege te daan na lijjanti mbiri nit ñi xam na ko kii donc loolu daf ci am solo absentéisme boobu ak démission bi nga xam ne nit ñu baax ñi démissionné nañ ko moo waral tey jii ñu dugal ñu ci guuta yu mel ndax tey am na nit ñoo xam ne sii man gis naa leen fii par exemple sëñ Moutalla Touré mais may seen nii mais kee bu nekkoon assemblée générale mais am na loi yooyu du fekkee mukk fu ñu koy wote te ay kemam bari nañ ci réew mi fi nekk nii nga xam ne gën nañ dara lépp lu ñuy wax ak di ko def ñoo ngi ciy xalaat seen tëraayu bàmmeel waaye nit koo xam ne yow booy wax ak moom sax li mu njëkk a wax naan la ah politique fii la yem am na ñi dañuy caaxaan waaw ah, politique moom fii rek la yem adduna gis ngeen loo xam ne fii la fi nit lu mu fiy wax ak a def kañ dana dana dem ba ci bis penc ba kulluhum aatihi yawmal qiyaamati farda am déet donc loolu parenthèse la woon boo xam ni wax dëgg yàlla réew mi lu fi yàqu ñii def di yàq ci lañu waaye ñii seetaan ñu yàq kenn ëpp leen ci responsabilité loolu moom yaakaar naa ni vraiment mat naa mat na cee bàyyi xel loolu kon pour doon expliquer rek ni mbir mi li nu jàppoon na mu demee woon ak léegi nii dafa wuute léegi agenda international la boo xam ni Nations Unies moo ko porté te Sénégal nangu na ko doxal depuis 2016 Sénégal mi ngi koy doxal li ñuy wax nii wax nañ ko fu te kenn mënuñoo contredire kenn mënu koo démentir am amul wax nañ ko à travers la SNEC 2 à la constitution même du Sénégal boo xoolee constitution bi disposition bi dugal nañ ko ci fi nekk nii nan lañ ko ci dugalee bu ngeen xoolee référendum bi ñu doon def 2016 dañoo indi fukki poñ ak juróom ñeenteelu poñ bi moo doon lan la reconnaissance de nouveaux droits xam nga le droit international bu dee la déclaration universelle des droits de l'homme mooy 1948 loolu ñépp xam nañ ko 1948 mooy la déclaration universelle des droits de l'homme waaye les nouveaux droits ci Nations Unies mooy 2011 te 2011 bi ñu def les nouveaux droits fekk na constitution 2001 bu Sénégal bi voté nañ ko ba pare looloo waral 2016 ñu indiwaat la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens mooy àq ak yelleef yi sénégalais yi amagul woon moo tax boo demee ci article 25 constitution bi alinéa 3 lan lañ ci def tout citoyen et tenu de respecter scrupuleusement la constitution les lois et règlements notamment d'accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d'autrui ñu ne képp kuy sénégalais kuy doomi sénégalais danañ la ga est tenu danañ la ga loolu force la ci nga tegoo li constitution bi wax loi yi ak règlement yi def li war sa diggante réew mi te nangul alaxam ak xam ak yelleef bi léegi alaxam mooy kan alaxam les droits d'autrui autrui mooy kaca des kaca des mooy kan xool leen lu toll ni constitution ñu naan ci àq ak yelleefu keneen ki kaca des alaxam ki kenn xamul kooku mooy kan puisque sénégalais la kañ war des naa xam kan la d'autant plus que boo seetloo constitution bi lépp lu jëm ci les Euh, droit ak liberté ñoo ngi ko def ci titre 2 bi moo nekk diggante article 7 ba article 16 waaye lii may wax dañ ko cay génne ci article 25 ba lañ ko yóbbu moo tax réew mi fan ko jëme musiba naaru laahi te li ci gën a yéeme mooy ci turu askan wi lañ koy def parce que principe bu gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple lépp lu ñu koy def askan wi lañ koy defal ci seen tur lañ koy def kon xëñ na mënees naa yem foofu ci agenda bi ndax mënees na cee xuus lu baree bari lu mu ci wax euh, yeneen yu baree bari loo xam ne lenn lu ci nekk lu am la ñu koy doxal ci biir réew mi fi mu nekk nii ngir bëgg bu ñu àggee 2026 mën a évaluer 2021 bi passé ci lañ doon évaluer à mi parcours parce que ci lañ def 5 ans ci SNEC bi euh, ministère de la femme de la famille du genre et de la protection de l'enfance donc doon évaluer juróomi at yi ñu ci doxagun fan lañ ci toll ngam ni génne naa ci ci télévision document boo xam ni document bu officiel bu ministre bi signé doon ñaan xaalis la coopération technique belge di leen ñaan xaalis pour ñu jàppale ko ci xaalis ak jàppale ko ci xarañte ak nit pour ñu évaluer genre bi fan nañ ci tollu ci Sénégal di ko ñaan ay tubaab léegi ñu bëgg ñoo gëm loolu léegi genre moom bokkut ak li ñuy wax feneen ak feneen ak feneen man xaw ma lan moo tax ñu doyadal ñu rek waaye ne nañ bukki moom bu yebee waxambaane ca ca doxin am nañu ko kon loolu doy na ci euh, agenda bi ñaareelu tom bi nag maanaam jëmmi criminalisé criminalisé moom xam ngeen du ma ci sori ndax dégg ngeen président génn télé naan criminalisé acteur ay nit maanaam ni mu koy waxee nit ñi sax seen fit yi daa dem voilà criminalisation euh, moom am na fi ay mbir yu bari ci réew mi yoo xam ne dañ ko pénaliser woon jël nañ ko ci peine yóbbu ko ci crime par exemple vol de bétail ak li ñuy wax càcc càccub jur jëlee nañ ko ci pénalisation yóbbu ko ci criminalisation xanaa moom dafa fàtte woon ne crime mooy acte bi rey nit kon wala boog càccub jur dafa gën a garaaw mbirum góor jigéen yemul ci loolu jëmmi euh, li ñuy wax viol te viol boobu am na sew-sew bu ci nekk boo xam ni réew mi il faudrait que dongo daara yi di bàyyi xel li ñu fiy def di ko def ci seen tur viol mooy sàkku nit ànd ak nit ci loo xam ne si nee na neexu ko maanaam disposition prévoir nañ ci sax diggante ñu baal ma pour mu leer laa bëgg wax rek jëkkër ak jabar maanaam ñaari way dencante sax fi mu ne sa soxna bu la mere woon bu la porté plainte ni dama violé bii ci guddi nga dem kaso te bala ñoo wax moom yow da nga dem tëdd kaso ba pare hmm? ñu soog koo lijjanti parce que loolu mooy pour euh, kii maanaam disposition exception bi nekk ci wàllu criminalisation ndax criminalisation su fekkente acte d'accusation bi dafa am léegi dañuy ñëw nit ki moom dañ koy jël jébal procureur d'abord ba pare procureur li muy njëkk a def li ko yoon may mooy day def mandat de dépôt d'abord moom amul leneen lu muy def même fekkee nit ki dañ ko jàpp en flagrant délit sax moom mandat de dépôt lay duñ la àtte day def mandat de dépôt nit ki ñu ne nañ ko yóbbu kaso d'abord ba pare suñ ko yóbboo kaso nag mu jël dossier bi jébbal juge d'instruction léegi juge d'instruction boobu nag moom yoon néew ko lii lijjanti ko tey néew ko lijjanti ko suba mën na koo fàtte fukki at laa wax wala juróomi at nit ka moom dem tëdd kaso kenn du wax ci mbiram loolu mooy jafe-jafe bi nekk ci criminalisation moo tax yoonu Sénégal ñetti xeet yi daan la la waaj atte ba rey nit moom jóg na fi depuis 2020 2004 yaakaar naa ñëpp xam nañ peine de mort abrogé nañ ko depuis loolu donc Abdoulaye Wade moo ko fi jële woon Euh, waaye Sénégal disposition bi li ñu waaj ñetti xeet la mooy contravention délit ak crime contravention délit ak crime lii la code pénal prévoir ci code pénal bu Sénégal léegi soo fiy sàkku dara nag faaw nga dëppale ko ak li nga xam ne moo fi am ndax noonu lañu tëralee yoonu réew su ko defee boo xoolee bataaxal bii nii da ngay gis ni FIDH benn bànqaas la boo xam ni moom mooy la fédération internationale des droits humains am na benn ministre wala boog ci wax ju gaaw rek Sidiki Kaba mi jiite woon na gis nga ñoom ci bataaxal bi ñu def ni communiqué bi dañ ciy wane ni ñoom ci seeni pression ak ci seeni doxalin ci la Ablaye Wade retiré peine de mort bi supprimé ko ci Sénégal waaye léegi lii lan moo tax ñu nangul ko FIDH muy kuréel boo xam ne kuréelu mbootaayu droit de l'homme la ba noppi bëgg koo bañal askanu Sénégal bëgg koo bañal xalif généraux yi ñoom ñu ni bëgg nañu ñu criminaliser mbirum góor jigéen ñu leen ah déedéet yéen li ngeen wax kenn du ko def te pourtant ñoo ngi koy nangul yeneen i kii bataaxal baa ngi nii ñoom ñoo ko def en 2004 wane ni ñoo ngi am ngërëm di féliciter président ci nangul gi mu leen nangul ci bi ñu waxtaan ak moom nañu supprimer disposition peine de mort ndax loolu yëfi dof la ñu mën koo nangul mbootaay yoo xam ne daanaka boo doon wàññi ñi ci bokk ci Sénégal doo ñu fukk mukk wala boog bala nga téeméer da nga sonn ba noppi gàntul ko ay millions ngi jafe-jafe la kon da gis ni criminalisation bi wala ñu pénaliser ko ak lu ci mën a xew jëm mi mbir mi day lu ñu war a lijjanti ndax wane naa léegi ni agenda la waaye wane naa it ni mbooleem biir réew mi fi ne surtout ñi ñuy tuddee les droits de l'homme droits de l'homme yi ñiy liggéey ñu baree bari ci société civile waxuma ñëpp nag fi ne bari nañ ay milliards yoo xam ne dugg na ci réew mi ngir jàppale ñii ngir seen mbir gën a mën a yaatu mën naa ci lim ay fonds yu bari fii ma yoo xam ne si alal ju bari lañ ciy def ngir jàppale mbir yooyu moo tax ñun ci proposition de loi bi nga xam ne def nañ ko da ngay gis ni d'abord dañuy lister mbir yooyu yépp ci lesbianisme gay bisexuel transsexuel zoophilie nécrophilie lu ci ne dañ koy lister wane nit lii ak lii ak lii lii mooy firi nangam lii mooy firi nangam askanu Sénégal dañ koy bañ ci réew dañuy bañit kuy wax di mel ni da nga koy rafetlu li ñuy wax acologie waaye képp ku ci sëb dërëm jëmit nga mel ni da nga leen di jàppale yaa ngi ñoom yéenay bokk daan waaye du yem ci loolu képp kuñ ci doon daan fi mu ne bu ko yoon daanee juróomi at wala fukki at fukki at yooyu moom sañ-sañ yi nga xam ne amoon na ko ci njaboot sax sañ-sañ yooyu yoon da koy nangu ngir rek ngir décourager nit ñi ba mbir mi kenn du ko def ci biir réew loolu moom mooy jëmmi euh, criminalisation su ko defee nag xam naa ni waxtu wi mel na ni sori na timis mi ngi bëgg jot ma ma daaneel si ñetteelu tom bi rek ci lu gaaw mooy lan moo tax ñu war koo def maanaam bés ko deful xam ngeen ni agenda bi wax naa ni agenda international la dafa am ñaari mbir yu làqu ci ginnaaw yoo xam ni ku ne war na ko bàyyi xel dafa am dañoo lay wax défi civilisationnel défi civilisationnel mooy lan mooy dafa am nit ñu tuuti ci àdduna bi yot seen ay mbootaay yoo xam ni doo leen gis bu ñuy dajee kenn du ko yëg kenn du ko fekke ñoom ñooñu nag ñoo ni àdduna ni mu tëdde dafa baaxul dañ koo war a soppi soppi gi ñu ko war a soppi nag gis nañ ne jafe-jafe yi ñu ci gën a am mooy nit ñi am diine moo tax ñu ne nañ fexe ba ndigalal yàlla ak lu yàlla waxoo nag naan diine ju wàcce woon asamaan loolu moom bu mu amati nañ ko teggi ci pénc mi nañ ko tegg ci pénc bi lépp lu ñuy waxati nañ jëfandikoo suñuy xel yi kese waaye mbiru ngëm-ngëm moom nañ ko génne ci pénc mi su ko defee lii diineeg loolu ñu suul ko dem fële loolu mooy li nekk ci ginnaaw projet bi may wax ni beneen bi des mooy li ñu wax la euh, fin des souverainté souveraineté mooy Sénégal dañ naay wax ni ñun ñoo moom réew mi boo xoolee constitution bi article euh, préambule bi sax déjà dañuy wax le peuple sénégalais souverain souverain mooy bi askanu Sénégal ñooy buur bi boo leen boolee ñoom ñëpp loolu nag ci moomeel googu la ñuy wax ni it nañ fexe ba mu takk ba nga xam xamante ni nit ñi li ñuy bëgg ci réew mi di Sénégal du loolu mooy doxati waaye li mbootaay gu tuuti googu ma waxoon li ñu bëgg ci suuf si moom mooy doxati te bu ngeen seetloo lu koy tegtale mi ngi ci constitution bi article 98 bu ngeen demee dañu wax ni les traités et conventions internationaux régulièrement signés et ratifiés on une autorité supérieure à celle des lois maanaam bu sénégalais yi falatee seen i député ba ñu wote ab loi loi boobu loi ordinaire lay doon en tout cas li le plus souvent loi ordinaire bi loi organique moo ko tiim moo nekk ci kawam loi organique loi constitutionnelle moo ko tiim moo tege ci kawam mboole seen ñoom ñëpp nag traité yi ak convention yi tiim dem ba nga xam ni kon bu député bi voté tee ay loi loi yooyu ñuy voté bu sénégalais yi rocci koo dem waxtaan ak France mbaa États-Unis mbaa Canada signé aw kayit lañu ñu signé moo tiim loi bi Sénégal yi wote woon député yi wote woon kon ana sunu moomeel te lii ma lay wax mi ngi ci constitution bu Sénégal bind nañ ko ci article 98 kon ñaar yi moo nekk ci ginnaaw mooy la fin de recommandations et des références religieuses ak la fin des souverainetés li tax ñu war koo def nag mooy benn pour jàmm ak dal la stabilité du pays mooy nit ñi àgg nañ foo xam ne bañ mbir mi bañ goo xam ne ni ñu yare sénégalais ak ni ñu leen tàggate tax na suñ ci légiféré wul ñoom danañ fegal seen bopp te loolu mën naa indi fitna ju ne beneen bi ci des mooy ngir daw mbugalum yàlla ku ne xam na ni xaw mu loot gis ngeen ñoom fa ñu mucc ngir daw mbugalum yàlla moom i tamit war naa tax ci ñu légiféré ci ngir mbir mi bañ ko fee encourage ngir bañit confrontation mën a am ci diggante nit ñi ndax nit mënees na ko soupçonné nii rek daan moom mi tuumal ko ko ñu dal ci kawam ay bokkam ñoom tamit jóg réagir loolu da nga gis ni mën naa indi ëllëg ak si biir ci fitna te loolu lépp ñàkk ko légiférer rek moo ko waral beneen bi ci mujj mooy ngir bañ a yaatal ak mbon bañ a bañ a yaatal ak mbon ak bañ yi tamit ak mooy yàlla wasaaroo il faut de que mbir mi tamit ñu euh, légiférer ci su ko defee loola dana mën a décourager képp koo xam ne sam xel a ngi ci woon wala say xalaat a ngi ci woon wala bëggoon nga cee tante dara ndax bu dul loolu ci ay gay parade la ñuy jëm ak ay sabaru góor jigéen ak ak yu ni demee gis ngeen bët ki dem bi ci am unité 24 parcelle foofu na mujje lu mel noonu nag du indi stabilité cim réew du indi ak dal ci réew loolu moom mooy xëñ na ci tënk rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu jërëjëf Serigne Ababacar. macha allah waxtaan wi am na solo lool xam naa waxtu julli timis wi jot na dañuy dem julli yi ba ñëw rek li ci des ñu eggale ko incha allahu ak commentaire yi ak waxtaan wi nga xam ne sëñ Modou Kama Thiaw moo ko war a def incha allahu taala دون الذي يريده المريد وهو عين صمد وباقي سبحانه سوكا نف وواقي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wa inni a'uuzu bika wa suriyataha min seytaan rajim rabbi a'uuzu bika min amasati sayatin wa a'uuzu bika rabbi an yaxturoni barke borom tuba mbokk julli du tedd yi rawatina suñu mbokk taalibe yi ñuy bàyyi xel di ñu seetaan te di ñu déglu moo xam ci site internet yu fasanti yi nga xam ni ñooy direct wala rajo yi nga xam ne ñoom itam ñooy direct ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ñu fay teewlu te di ñu bàyyi xel yëpp di la nuyoo fii ci Daaru moxti tey jii yamook altine yamook dimanche fukki fan ak ñett ci weeru mars ci atum 2022 di bis boo xam ni dañu ko jagleel a Cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Moxti ci ndigalu Cheikh Mahamadul Basir mi nga xam ni moo fi nekkal Cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Moxti waaye itam jaare ko ci comité d'organisation bi nga xam ni ñoom la dénk lépp lu jëm ci màggaluk Darou Mouhty édition 2022 ni ko magam yu baax yee daan amale tàmbalee ko ci Cheikh Mamadou Awa Balla wàcc ci Cheikh Abdoul Khoudous ba ci Serigne Cheikh Khadi ba ci Seydina Abbas noonu la ko Serigne Cheikh Mamadou Bassir fa yéene continuer ci ànd koog njaboot gi ñëpp fàttaliku dundal waaye itam màggal bisub dajeb Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ak Cheikh Ibrahima Fati borom Darou Mouhty ginnaaw tukki bu sell bi nga xam ni moom la Serigne Touba Cheikhul Khadim tukki woon ba ñëw dénk njaboot gi ak dongo yi seex yi ak dëkk yi ak Cheikh Ibrahima Fati borom Darou Mouhty def fa juróom-ñetti yu manqué tuuti ñëw te dara yàquwul bisum mbégte ba ñu daje woon nag mooy màggalug Darou Mouhty ñu di ko waajal loolu moo waral tey jii plateau spécial la ñu amal boo xam ne ñu ngi ko amalee fii ci kër borom Darou Mouhty waaye di ko amalee itam ci taxawaay mboolem comité d'organisation bi yëpp ci njiitul Cheikh Mamadou Bassir moom nga xam ni moo yore euh, comité d'organisation màggal gi ànd kook njaboot gi yëpp waaye plateau bi itam ñu ngi koy amele ci teewaayu sunu sëriñ suñu kilifa di al imaam Cheikh Abdou Samane Mbacke moom sëriñ Mouhamadou Awa Balla nga xam ni moom la sëriñ bi dénk lépp lu jëm ci wàllu diine ci dëkk bu sell bii di Darou Mouhty bu ñu nee diine nag yaakaar naa dara gënu cee euh, yay dara gënu cee mag bis bi nga xam ne moom la ñuy màggal te li ko tàmbali ak la ko yeggale ak lañ ci doon fàttaliku lépp boo ko daaxee day daal di dellu ci diine te mos ko génn ci benn yoon kon jàpp naa ne ngi nii tey toog euh, gis ngeen plateau yi solo yi nga xam ni ubbee woon nañ ko ci télévision yi ci réew mi yëpp def ko ci site internet yi waaye tey mën na maa wax ni ci plateau yu mujj la bokk yoo xam ni dañu ko fas yéene defee fii nag ci résidence Mame Thierno Birahim fas yéene ko def waxtaan wu am solo ànd koog Serigne Abdou Samane Mbacke imam mi nga xam ni moom la Serigne bi itam dénk lépp lu jëm ci liggéey bu am solo bi nga xam ni naalal na ko borom Darou Mouhty muy jumaa yi Darou Mouhty waaye itam ba léegi ci jataay bi Serigne Ganna Messere Maxtaar di conférencier boo xam ne yaakaar na du ñu ko présenté ci réew mi ñu nekk ak bitim réew rawatina lëggeel Serigne Touba Cheikhul Khadim waaye rawatina ci ëttub Cheikh Ibrahima Fati borom Darou Mouhty loolu la koy firndeel mooy waxtaan wi bi mu koy def si bàyyi kowul Touba bàyyi kowul ci beneen dëkk waaye ci kërug boppam la bàyyeekoo ñëw fii ci résidence Mame Thierno Birahim fekk fi Cheikh Abdou Samane Mbacké ñëw fa séene amal waxtaan bu am solo woo xam ni incha allah rabbi dinañ ci ñëw ci kanam tuuti waaye itam Serigne bi fekkoog Serigne Abo Mbacké moom Serigne ba Anta Niang nga xam ni moom la Serigne bi dénk lépp lu jëm ci wàllu communication bi te ñu gis wax dëgg yàlla itte ji mu ko def jëm jëm ko jox muy guddi muy bëccëg amul jën yitte ju dul màggal gi law tas ci àddina bi ñëpp ba ñëpp xam ne daal bisu mbégtee ngi boo xam ne ku ko teewul itam fa nga nekk mën nga koo dund ci sa xol mën koo dundal ci alxuraan ak sunna mën koo dundal ci xasaayit ak ay salaatu na bi kon sëriñ bi mën na maa wax ni euh, liggéey bi fa tabaarakallaahu liggéey bu am solo la bu kawee lool moom itam moom la ñuy àndal ci jataay bi xam naa euh, bu euh, weesoo présentation bi ñuy def sax moom la ñuy jox mooy modéré jataay bi tey bu ko defee laaj yi nga xam ni mooy bàyyi ko ci moom Euh, dem ci sëriñ Gana Messere Maxtaar waaye dem ci al imam sëriñ Abdou Samane Mbacké mooy diggante borom daarul moxti ak liggéey nga xam ne borom daaru moxti mos naa wax sëriñ saa jenn ni ko mbaa amoo taalibe bu dul liggéey ni ko boo ko amee booy ba nga wàcc ko daal di ndax ku dul liggéey du jekki ku jékkiwut du jaamu yàlla ku jaamuwul yàlla du dem àjjana kon jàpp naa ni léppam da koo tegoon ci liggéeyal sëriñ Tuubaa Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul ak jaamu yàlla loolu yi sëriñ dana ci ñëw incha allahu rabbi ubbi ko bu ko defee boroom xam-xam yi fi teew man ci indi ab bunt boo xam ni dañ ci mën a jariñu ci teewaay yi itam Serigne Mahmoudan Mbacké moom Serigne Bassirou Anta Niang moom itam kenn kenn ku ne xam na ni euh, comité d'organisation bi moom itam lëggéey bu am am solo la ciy def lépp lu jëm ci wàllu teg ko ci loxo taxawaay tolluwaayu liggéey bi ak màggal gi lépp coono yi la ko tàmbalee ci bale baak organisé beeg lépp fa tubaarakallaahu aw noo yoon ba mën na wax mën na ma wax ni li dos li des suñu digg ak euh, màggal gi ay fan yu néew la war a doon euh, Cheikh Ibrahima Mbacke euh, moom itam moom Serigne Bassirou Anta Niang koy ziare bu moom itam mi ngi teewee jataay bi mboolem journaliste yi nga xam ne teew nañu fi yëpp man damaa wax ne diggante Touba Darou Mokhti Mbacke bépp rajo bu fa nekk tey yaa ngi en direct Darou Mokhti fii ci résidence maam Thierno Birahim ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew kon loolu mooy jotaayu tey bi nga xam ni lépp ñu ngi ko amalee ci ndigalu sëriñ bi ci taxawaayu comité d'organisation bi waaye ci taxawaayu cellule de communication bi ànd kook borom xam-xam yi monsieur Abdou Samane Mbacke nga xam ni jàpp naa ni bu ñu nee Koriteeg Daarul Moxti wala ñu ni Tabaski Daarul Moxti wala ñu ni bisu iit ci Daarul Moxti àddina bépp dañuy xaar discours Cheikh Abdou Samane Mbacke ngir la muy làmbool ci ay njariñ ak la muy làmbool ci xam-xam boo xam ne jullit bu ne mën nga cee jariñu kon loolu lépp tey dingeen ko am fii ci jataay bi waaye sëriñ Gana Messere Maxtaar nga xam ni kenn ku ne xam na taxawaayam ci seexul xaddim waaye jaare ko ci borom daarul moxti moom itam mi ngi ci biir jataay bi kon mbokk yi ñu leen di bàyyeek sëriñ Abo Mbakke moom sëriñ Bassirou Anta Niang mi nga xam ne mooy président cellule de communication bi tey mooy modéré jataay bi fa tabarakallahu moom itam di borom xam di ku baax ku yittewoo ngërëmul sëriñ bi nu ñaan sunu borom defal ko ci tawfeex sëriñ Moustapha Ndiaye directeur général rajo Darou Mouhty FM moom itam moo doon coordonné diggante cellule de communication ak mboolem presse yi fi teew yëpp def na ci taxawaay bu am solo fa tabarakallahu bernde yi am solo mu des nag ginaaw ba ñu berndeelee yaram yi ñu war a berndeel ru yi mboolem fu waay nekk mën a ànd ak ñun kon sëriñ Abo dañu lay dee daal di jébbal kàddu gi nga ubbi jataay bi présenté ñu thème bi posé question yi borom xam-xam yi ñëw ci àddina bépp mën cee jariñu kon sëriñ Abo kàddu gaango bismillahi rahmaani alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa julli ci yonente bi salallahu taala alayhi wa sant Sëriñ Tuba Cheikh Ahmadou Rasul ñi ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xamante ni moo fi toog toogaayu Cheikh Ahmadou Bamba Rasul di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fii te wéral ko bu baax ba mu àggalee ay yéeneem ci dem ko bëggee di ko ñaanal Cheikh Mouhamadul Bachir bi nga xamante ni moo fi toog toogaayu ak Cheikh Ibrahima Faati boroom Daarul Mooti di ko ñaanal suñu borom gën koo dëgëral gën koo kàttanal ba liggéey yi mu sumb naanal ko borom Daarul Mooti yépp mu àggale ko te ñun ñëpp ñu àndandoo ko ak moom di ziyaar bu baax itam mi nga xamante ni moom la sëriñ bi dénk kàddoom te lu jëm ci organisation Daaru Muxti mu jiite ko ñu ànd ko ak moom waaye di ziyaar bu baax suñu kilifa gu tedd gi nga xamante ni moo nekk ci suñu wet muy sëriñ Abdou Samad Mbacke ibnu sëriñ Mouhamadou Xawa Balla ñu fas yéene seq ak moom waxtaan wi tey jii ak ki nga xamante ni moo di Serigne Gana Messere Maxtaar Serigne Abdou Samad Mbacke doy na ab tënk bu gàtt rek ci xamle ko bu ñu waxee ni moom mooy ki nga xamante ni moom la sëriñ bi dénk lépp lu jëm ci wàllu diine yi doy na sëkk itam ci xamle ko bu waxee ni Serigne Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Mouhamadou Xawa Mbacke moom Cheikh Ibrahima Faty boroom Daarul Muxti dana sëkk itam ci xamle ko bu ñu waxee nii mooy Sëriñ Amdu Sabar Mbàkke bi nga xam ne mooy imaam bu Daarul Muxti liggéey bëri bii nga xam ne itam sëriñ bi sumb na ko fii ci Daarul Muxti muy liggéeyu jumaa ji yaa salaat ko moom Sëriñ Amdu Sabar Mbàkke mii la ko teg ci loxoom mu nekk jëwriñ ji mën nañoo wax ni mooy ci sëriñ bi jot woon ay kàdd yu gàtt yu am solo ci jamono yi ci ginnaaw wax ni li tax ma wóolu ko ci liggéeyu jumaa ji jiital ko ci mooy Sëñ Abdou Samad dafa doy ñëpp mu sagale ñu nag ñëw bokk ak ñun jataay bi di sant borom baax loolu indi gàllankoor bu bare bare ci ci ci bu baax ñëpp xam nañ ko ne diine yi waxuma la sax li muy defar ci lu baax ci bokk ak ak ak njub ak tegu si mustaqim waxuma la lool waaye économiquement rek dafa laal réew ñetti at yi nga xam ne màggal amut dara amut nga am amut feeñ na ci réew mi milliard bare bare Sénégal perte ko kon bu ne bu ubbaat yof yof yi dañ ko sant suñu borom te ñaan lii mu bañ amati euh, la ca ki mooy màggal gi may wax ne moom daanaka màggal gi sëñ Tuubaa la màggal daaru moom màggal sëñ moo tax bu fekkee dara tax mu am mu am moom moo moo mbir ma sëñ Tuubaa moo màggal gi li waral mooy sëñ Tuubaa amutoon màggal gi du am bu Sëñ Tuubaa amoon te màggal maam Cerno Ibrahima xamante wutoog moom màggal gu du am waaw bu ko xaman màggal topp ko te màggal gu du am waaw bu fekkente ne bu fekkonte ne ba mu demee ci géej gi dellusiwut màggal gu du am kon lépp Sëñ Tuubaa lay dal ak yéen nag du am di màggal gu am solo ndax victoire lay lay wane victoire Sëñ Tuubaa lay wane ak victoire maam Cerno Sëñ Tuubaa tubaab bi jàpp ko yóbbu ko te ku ñu mës a jàpp yóbbu ko doo doo doo doo doo desi moom suñu borom delloosi ko loolu victoire dañu wax ne ki dee dàqul ki daw dàqul jëla borom da koy nettali sëñ tubaab doo nga songu tubaab ñu nettali fu mu jaar ak ñoom kon moom rek moo am victoire bis bi bisu feetu victoire sëñ tubaab waaye bisu feetu victoire maam Cerno Ibrahima la ndax kenn xam ne bi koy bàyyi yoon muy dem di ko bàyyi njaboot gi dem boobu lu metti woon ma lu daj na ko xaw nañoo mën a wax ne li sëñ tubaab ci Gabon maam Cerno daj na ko fii ci senegal ci métit ak jaaxle ak tartaan yàlla di ko dimbale lañ ko dénkoon dara yàqu ci ñu dajewaat sottantee xalaat waxtaan xolub Sëñ Tuubaa sedd lool xolub maam sedd lool ndax kat bu fekkoon tey bi suñ bi demee daa dellu si fekk lépp jaxasoo wala dara sikk ci kon maam Cerno dana am kersa waaye Sëñ Tuubaa dana am kersa ndax ñëpp fi nekkoon mu bal mu bay leen fa jox yëf tekku jox maam Cerno daal kon nag bu waate fekk lépp mel na meloon kon loolu webtuwaar maam Cerno la webtuwaar Sëriñ Tuubaa la la ki mooy ànd ba ànd jeex ànd ak jàmbaar ju xel moo gën ci ànd la woon du am xel la jàmbaar bu antukum xel ab def lay doon te def kat dana def dara ngir neexal la far mettital la pour defal lu baax far yàqal kon ànd ba ànd ba jeex ànd ak kuy jàmbaat am xel mu ci mu ci gën yooyu taxoon sëñ Tuubaa tànn maam Cerno Ibrahima kon loolu ñëpp mën nañu ko siyaare te it waxuma la sax ñëw gi siñ Tuubaa del si waat Sénégal ak li fekk maam Cerno def ko waaye maam Cerno def def am solo yoo xam ne léegi dañ ci war di bàyyi xel te muy la am solo loo xam ne jar na feetu jar na màggal ba ca njëkk mooy bi ko bi tubaab bi convoqué sëñ si maam Cerno Ibrahima ca Ndar ñun ñëpp xam nañ ne euh, Serigne Touba maam Thierno yebal mu dem waxtaan ak tubaab bi fi ngay njëkk a yéeme ci maam Thierno ab xam-xamam mooy wax nañ ne <coughs> bi nga xamane ki koy traduire ñoo ne di wax mu gis kanam tubaab bi soppiku la xam ne kii li ko li li ñu koy wax bokkute li muy tekki loolu xam ilmu nafsi la ko am géologie te te muy lu yéeme ndax ki nga bokkal kër bokk moom jotaay saa bu bëggee da xam ne bëgg na tey saa bu mere da nga xam ne mer na waaye maam te boobu keroog la xam meram tubaab loolu boobu yóbbu mu laaj benn traducteur mu traduire ko tubaab bi xam ne li mu doon wax waxu ko la ci ëpp solo ci la mooy daf ne daf ne daf ne tubaab bi bàyyi ma dem ci sëñ tubaab boo demee dana wuy waaw mu ne ko mën nga ko na ko garanté danaa ko danaa dem boo nee boo nee dana ñëw waa bi ne ko léegi danaa yónnee télégramme ndax yebal na pour jàppi ko fu leen fu fekk fa ñu toog may laa 24 heures bu dikkee nag ñu door dem ci kanam loolu li ma ci jublu mooy tubaab bi moom baax woon nañ ku ñu jàpp ku ngay borom mbooloo wala ngay borom daraja ñu ci kër fekkal fa sa njaboot dañuy humilier dañuy ihaana dañuy màcc ci sa kanam njaboot Sëñ Tuubaa aw ñu koy jël si ci ci ci ci ci Mbàkke u baax Ba ndëkkoon nganaat lu njëkk jàpp semaine moo dox seen diggante kenn bañ ko jàppee ci digg njaboot digg taalibam dañ ko yeew yenal ko ci laaj ndax ne kon yéen a joojee mën naa am yéen yéen nañ ko Sëriñ Tuubaa nag bu fekkonte ne tubaab bi ñëw na ca ca ca Mbàkke bari dam def ak Amadou Ba moo ko def ak Sëriñ nu muy deme ndax murid dañ ko seetaan dee du ñu ko seet mukk ñu koy def loola kon jàpp naa ne loolu amoon taarixul murid bi ñu bind nii beneen beneen façon lañ koy bind doon bi kon maam Thierno imité na catastrophe bu garaaw garaaw boo xam ne bu amoon rek yoon wi dana dana mel ne du du nii kon loolu jar jar jar na màggal ko jar jar jar doon dem ci moom mooy benn. ba ca ci ndamul maam Thierno mooy deuxième guerre mondiale ne ki am kilifa yëpp nañ bind ay soo te dañuy natt kar kenn ku nekk la am ci la am ci mbooloo lu toll noonu ngay joxe ci chef d'art bi ci waxee Sëriñ Tuubaa dafa gàntu wax xamal na leen. man yuru may jaam xeexu leen jaam kon du ma du ma du ma yebal kenn muy dem leen xeexali ñu wax gaan mu teg mu taxaw foofu ñoo am bi bi ñu réunion dañ kon léegi nañu def nañ ko génne réew mi génn bi ñu ko doon génn ba bu njëkk ba ndax génn bu njëkk bi exil la woon mën naa def ñaari at mën naa def ñett mën naa juróom benn at mais génn bu ñu moom définitif lay doon dañ koy toxal yóbbu ci benn réew ñu Madagascar te buy dem day bale njabootam ñëpp lay murid yëppay dem fekk ànd ak moom maam Thierno maam Cheikh Anta ñëppay dem ànd ak moom boobu kon yoonu murid doom doomu Sénégal waaw kon ñu ñi tey eh, màggal ci war a dolli moom suñu Babacar dañ koy jox mu dolli ko ci rek bu ko defee ñu doog di eh, jox Serigne Mbacke Diop incha allah ok jërëjëf euh, dafa am lu ma ci bëggoon a dolli rek li waral ñu war a légiférer ci mbir mi wax naa ci ci stabilité réew mi wax naa ci it ci taw mbugulum yàlla euh, waaye am na ci yeneen ñaari fànn yoo xam ni it xëy na booba waxtu wi ni mu jan moo tax ñu noddu benn bi ci wàllu santé la jëm benn bi ci wàllu koom-koom euh, gis nañ ni mbir mi jëm ci wàllum góor jigéen ak LGBT yi fépp foo xam ni développé na réew ma faw mu dellu ginnaaw ndax ci jëm mi prise en charge question yi donc ci wàllu koom-koom bari na ci alali réew mi loo xam ni faw dees na ko dagg mu waroon a dem feneen luy jariñ askan wi mu jëm ci ñoom ngir lan mooy beneen pàcc bi ngir man leen a taxawu ci seen wàllu wér-gu-yaram ndax ñun ñëpp xam nañ ni bari na ay lennat ci xeeti cancer yi fi mu nekk nii muy lu mel ni cancer de l'anus ndax ku ne xam na ni euh, ginnaaw nit ginnaawam loolu waajaluñ ko pour sëy léegi dafa am li ñuy wax cancer de l'anus balaa àgg ci cancer bi nag am na sax yeneen yoo xam ne moo ci am mooy ñi nga gis ñu koy def ñëpp foo leen fekk dañuy dañuy kuusu dañ leen di kuus dañuy couche ndax day mujj seen ginnaaw gi day ubbeeku fu ñu toog mu sotti ko donc couche yooyu ñuy couche la nga xam ne fu ñu toog tuuti boo leen gisee ñu daal di jóg dugg ci toilette yi changer seen couche nangam defaat ay parfum soo a mën ñëw toogaat ci nit ñi waaye bu yàggee ci cancer de l'anus boobu leen jëmee te cancer boobu it laaj na alal ju bari loo xam ne des na ko jël ñépp bokk ko ñu dagg ko fi mu ne jëmee ko ci ñoom pour mën leen a toppatoo gis nañ aussi ni feebar bi ñuy wax it sida nit ñi ëpp ci ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom lañ ko euh, askanale nga xam ne milliards yi ñu ciy def yépp am na ay kàngam borom yi xam-xam yoo xam ne def nañu ndaje mu rëy fële ci États-Unis waaye médecins yi bi ñu xoolee dañu daal ñoom li ñuy recommandé mooy nañu wax nit ñi dëgg. te mbirum góor jigéen bii ñu jëm koo saafara ndax tant que saafaruñ ko sida kenn du ko jëlee ci kaw suuf si ndax gis na ni ñi muy dal la ëpp ca ñoom mooy ñooñu ak ñiy jëfandikoo drogue dure drogue dure yi kon gis na ni kon yeneen ñaari fànn yooyu tamit boo ko ci dollee da nga gis ni kon bari nañu ay mbir yi lees mën a teg baaraam ngir mën a lijjanti li ak it surtout aussi sàmm suñu ndono ndono li nga xam ne am nañ ko tey Sénégal xëy na du réew mu rëy lool Sénégal xëñ na du réew moo xam ne nit ñi bari nañ lool ci 17 millions yi toll waaye nag àdduna sépp naw nañ leen ci ndono loo xam ni am na ci am na ci réew mi xëñ na nit léeg-léeg nag dara dana ko jege ba mën naa bañ a xam solos li ko jege loolu lan la ndax jege gi mu ko jege ak miin gi mu ko miin waaye Sénégal suñ doon xool ci ak mbaax ak yiw yaakaar naa ni boo doon wër àdduna néew ma sénégalais yee gën ñëpp de waaye jafe na lool nga gis ñoo xam ni am nañ ndono lu rafet lii ñu am fi nekk nii looloo tax nag lu mel ni Nations Unies tey ak lobby yi gën a xarañ ci àdduna bi Sénégal lañ teg bët naka la ñuy fexe ba déstructurer la société sénégalaise te déstructuration boobu nag li ci gën a gaaw mooy mbir mii fi nekk nii ndax bu ñu demee ban ni léegi la famille famille moo doon lan njaboot njaboot ñu ni bàyyi lay doon mu samp kër jël soxna wala mu yor ay soxna yàlla dénk leen ay ay ay ay bant maam yàlla wala njaboot wala ay doom loolu ñu ne nja loolu mooy njaboot ñu ni déedéet njaboot mën na doon sax léegi fi mu nekk nii ci kilifteefu xëy na euh, ñaari jigéen am ko wala ñaari góor samp kër wala boog sax li ñuy wax euh, polyamour maanaam ñetti góor ñetti jigéen wala ñeenti jigéen nga xam ne ñoom ñëpp ma àndandoo rek comme comme lu kenn xamul di sayndoo ci seen biir xam ni sëy bi day am ñetti góor am ñetti jigéen mbaa ñeenti jigéen loolu la ñu tuddee polyamour nga xam ni ñoom jàpp nañ ne loolu mooy famille léegi waaye famille doonatul rek góor ak jigéen te ci ngeen di comprendre lan moo tax seen carte d'identité yi ndey ak baay amatu ci parce que xale bi bu juddoo ñu ne ñaari góor ñoo ko jur maanaam adopté nañ ko wala ñu waxtaan bañ jox leen doom ñaari góor jur ko léegi kan nga ci wax mooy yaay ji amul léegi nag su fekkente ni moom xale bi juddu na ci loolu ba noppi nga ñëw ni ko léegi nga ne ko sa papa xëy na mën naa joxeñ kenn waaye léegi yaay ji kan ko yox léegi soo ko waxee da koy indil benn euh, traumatisme da koy defal benn choc léegi moo tax ñu ne kon nañ teggi loolu maase la ñëpp ñi amoon ndey ak baay ak am ñaari baay ak am ñaari ndey ak xam ngeen li ma bëgg a léegi nañ leen maase la ñoom ñëpp rek def parent un parent deux waaye bàyyi ak ndey moom na tëb la waral seen carte d'identité ñu ak sama carte d'identité amatul ndey ak baay Sénégal génne nañ ndey ak baay fi mu ne ci carte yi ndax transition la mi ngi war a dem ci parent un parent deux sa waajur wenn sa waajur wenn waajur wenn waajur wenn léegi mën naa doon ñaari góor mën naa doon ñetti góor mën naa doon ñaari jigéen ñetti jigéen mën naa doon góor ak jigéen kon nañ ko baaxe xam mën naa doon leneen ak leneen ak leneen loolu loolu mooy société bi nga xam ne ci lañ jëm ma ma daaneel ci benn anecdote dafa am benn ñaari góor ñuy sëy fële ca Italie bi ñuy sëy ñu dem ba yàgg ni dañoo bëgg doom te mënuñoo am doom ndax góor moom doom du umbi ah, ñu ne léegi lan la def ñu léegi nañu waxtaan ak seen kenn ki na waxtaan ak bu jigéen mu may ko euh, li ñuy wax ovule nen bi jóge ci jigéen kooko dem ñu daal di koy prélever benn ovule ci euh, kër docteur mu daal di koy may mag ji biñ leen ko mayee ñun léegi ah ku leen koy ëmbal ndax ñoom mënuñu ko ëmb mu dem waxtaan ak yaayam yaayam ni ko naa la ko ëmbal yaay ji ëmbal ko ba indi ko daal leen jox doom ji léegi seetlu ma lii mooy lan